Hmm. wallaay alchim ba ne xam naa di ma déggul français tax waxi maître Clédor lii muy de ni boppam bi jaxasoo noonu la waxam bi jaxasee sama bopp bi <laughs> wallaay alchim dama déggul français lu mu wax sax l'état du Sénégal a franchi le Rubicon waaye yow maître Clédor lii luy Rubicon s'il vous plaît <laughs> Le républicain a produit dans le dossier de la CEDEAO une vidéo montée à partir des diffusions de Anita, qui est son monstre médiatique, et il est désemparé lorsqu'il a su que les patriotes ont rétabli et produit au péril de la cour des originaux de vidéos qui faisait partie du dossier que Amadou avait amené à Abuja. faranci kay leeru mu teg ci ne c'est pour cette raison que l'État joue la carte du dilatoire non, ah, du dilatoire en demandant le report de l'audience wallahi <laughs> achim maître que la door di ne ni boppam bi jaxasoo non la jaxasee sama bopp bi ci waxam ji dama jàngut farañce jànguma farañce daal wallahi achim maître que la si doon li moo xaram rek laay